waaw jërëjëf mbokk yi kon mi ngi noonu match ba jeex na demi finale Ligue des Nations bi doxoon ci diggante Italie ak Espagne Espagne moo def déplacement bu am solo tey dem fële ci Milan gagné fa kooku rek euh, di Italie 2 buts à 1 kooku rek euh, di Ferran Torres moo dugal sax ñaari but yi yëpp yi qualifié Italie ci finale Ligue des Nations kon itali moom daal dinay qualifié ci finale bi jamono ji euh, moom équipe bu Espagne bi nag moom équipe bu Espagne moo qualifié ci finale bi bokk di xaar demi-finale bi des suba ki ci gagné moom la war a laaleel moom équipe Espagne bi nag jeexal na série bu gudd bi nga xam ci équipe Italie bi defoon na ko 37 matchs yoo xam ne si victoire la woon 9 matchs nul 0 défaite tey jii nag moom daal daal di ne woon a def 38e match am waaye jëlewu ci li moom moo di victoire kon dañ koo gagné moom équipe Italie bi ñaari bal ci benn match boobu nag mi ngi woon ci demi-finale Ligue des Nations yi kon mi ngi